ñëwul woon wante moom lañ fa gën a tudd. Moussa Bokar dañu dundaloo jamono yi. ngir xeex li ni mel nag liggéeykat yu télécommunication ak yu poste daal boole seeni doole ngir daal di naqarlu li nga xamante ni moo di li ñu coupé internet. ku internet bi doxut ñun ARTP dañuy fëgg ay pénalité yu internet nous manifestons ni fiables ni viables. daggum internet nag di jur ay jafe-jafe yu bari. tey nos forces de défense bu bëri ci li ñuy coordonner seen i actions ça se passe par le mobile par le les données tey la surveillance de nos frontières. le port c'est l'internet mobile. la météo et bu yàggee.

bu dut yàlla gisuñu mu tere ñu àgg suñ bëgg boobule coppite nag fan lañ ko war a dooree moo di secteur bi ñu daal di koy jëlee ci loxoy jëwriñ gi gàlloo communication daal di koy jox gi gàlloo koom ci jamono ji nga xamante ne nag coowalu politique moo ngi jur ay jafe-jafe yooyu leen ñeenti syndicat nag daal di am jàppandal aar sunu élection